xam nga maam Cheikh Ibra mas nañ ma ko laaj ci Saint-Valentin amul xaadim ma ne leen bu dee ak roy doyloo rek gëmm bañ a xool kenn mooy Cheikh Ibra patuus la def ci Xaadimu Rasuul xam nga taalibe bu naafiq muy bëgg xool fii xool fële sëñ Abdoul Aziz Al Amine daf ma waxoon ne ma bul yor jikkoy gélém ma ne ko papa loolu mu ne ma gélém buy lekk ci garab gi xelam ak ca garab gi xaadimu rasul dafa am bés mu ne dama am laaj bu may laaj ñu ne ko mbàkke bul laaj yow loo laaj kenn du la ko tontu mu ne yéen xam ngeen tontu bi ñu ne ko lan la mu ne menn xel laay laaj olof damaa dégg mu koy tudd luy menn xel mag ñi profité naan ko mooy benn bët benn bët xam nga benn bët la ñuy tuddee menn xel waaw ah, benn bët ñu ne ko mooy benn bët mu ne déedéet Cheikh Ibrahim mële mooy menn xel mu ne bëreet ñëw ne ko mbàkke lu xew da daan wax ne garde koor day dànd koor lu jëm si ca corps ba balaa yegg nga njëkkante ko moom mais garde corps du sësu corps kon dañ koy boole koor ba kuur ne ko mbàkke lu xew mu ne ko ñii dañuy laaj menn xel lan la ma ne leen mooy yow ñu ne ko Mbàkke lu tax mu ni Cheikh Ibrahima menn xel la ko yàlla jox xel mi ko jox Bàmba dong ci ne kenn newu ci loolooy menn xel xelum Cheikh Ibrahima Fall kenn nekku ci ko du Xaadimu Rasuul loolooy ànd bu honnête xanaa xamoo baaba kër miit ñu dem ma ànd ak moom ngan koor ñu dem si ñu tegal ñu ñetti palaat ñu bokk ma ak moom palaat yi ma lekk ba mu yàgg ma toxu ca beneen palaat di xool lu mu saf su kër yee yeewoo na ma ba koy bàyyi nit ci ndab lu ngeen bokk di seet ba bale lu mu saf boo gisee ku ko ëppale toxu ca dëgg la wala dëgg Cheikh Ibra nii rek tànki neen tànki neen rek talu la peñe karawam ndax ndigalu a Rasuul talu la sol daal ndax mën a sol guddeem bëccëgam subaam ngoonam kenn rek la ci def ci xelam muy xaadimu rasul loolu la ko yàlla fee tànt boo dem waxtaanee sëñ bàmba dara du xew boo ne maam Cheikh bi nga dégg ko ne akasa jóg yuuxu boo doolee ñu tas tànt ba bu dëgguwuloon ci xaadimu rasul du am loolu mukk si àdduna dem naa benn tànt palmeew di fa conférence ma tudd Serigne tubaab bi muy jëm ci géej gi maam Cheikh Ibra bi muy waaj ak ni mu taxawee sëñ tubaab di tàggoo noonu ni mu takkee ndigir ak tànk yi mu def ak ni muy waaxoor yi di ko wër mu ne ko Ibra dalal maa ngi ñëwaat ma toog toog rek gis tànt bi nekka buddi nañ ko buddi ca kaw laa wax aj ko Seydina Omar dem sëtu góor gi alaaji Amad dem ca Sokone la ñooy ànd mu dóor ma kaan bi ma geesu ko mu ne ma xoolal tànt bi sa kaw la jëm de ma ne ko xoolal boor bi chauffeur bi ma àndal nag ko yeewu la mu arrière oto ba ci bunt fiil bi may fii waxtaanee dafa gudd may waaxu rek ndànk di dem ndànk di dem ndànk yuux yi tànt bi kuur yi mane sarax ci oto ba ñu ne fes tànt bale nga lañ te tudd naa fa sëñ Tuubaa junni yoon mais bi ma tuddee taalibeem soppeem ki ko gëm muy muy maam Cheikh Ibrahima Fall làmp doy na neex-neex doy na ndam doy na sak doy na tiitar itam mooy ba ñuy tabax jumaa yi tuuba jumaa yàlla moom sëriñ Faliilu Mbàkke génn xool sooroori jumaay yàlla ji mu xool ba ca gën a gudd mu ni tuddee naa ko Cheikh Ibra Fall Lamp loolu doy na ci ki may laaj tarbiye dëgg mooy Cheikh Ibra roy dëgg mooy Cheikh Ibra taalibe dëgg mooy Cheikh Ibra bëgg dëgg mooy Cheikh Ibra bañ a boole kenn mooy Cheikh Ibra ji nga jigéen ju ko royoon ci sab sëy daa am doom ju baax gëmm ci sa jëkkër rek taalib bu ko roy ko royoon ci sa sëriñ dana baax gëmm ci sa sëriñ rek doo dégg Cheikh Ibra ci daara daara daara boo fa koy seen mu buuf rek of koor noppam yépp a ci Xaadimu Rasuul moo tax taalib yi mi mel ni ñu mel bu euh, defe naa Serigne Cheikh Jëmbu Fall la maam Cheikh Jëmbu Fall suma xarit la Serigne Moustapha Fall di rakkam moom la yebaloon sama gàmmu Cees moo ca ñëwoon buy yóbbu àddiya gaalu xaalis la ñu yóbbu waaye maa ko seetaan gaalu weñ gu fee sax xaalis te ca maam Cheikh Ibra Fall lañ ko jël moo tax boo ne xilaafa Bàmba ne xilaafa Fall rek boo ne Mbàkke ne Fall rek dafa am bis may fàttaliku boobu maa nga buleel Cheikh Abdoul Ahad Mbàkke radiyallaahu anhu yabal murid yi Baay Fall yëpp ne nañ dem buleel deqi ko xam nga samedi dañ fay fanaan a gàmm dimanche ji ndéqi pour nit ñi fanaan si mën a teel a dem tool ci guddi gi la Baay Faal yi ñëw ci guddi gi déqi tool yi Serigne Cheikh yónni ci ñoom ne leen ngi bàyyi leen fi bu njaboot gi ñëw barkeelu ci ñu ne loolu amul ndégal jëfe déqi rek loolu murid def koo koy maam Ibrahima Fall